Jobaas Info TV nañu wax ak Jobaas. ma teewaay fii ci jungaan dafa nekk ci ñaari pàcc parce que monsieur le ministre duma la ko nëbb man fii laay milité ci jungaan bennoo bokk yaakaar fii ci jungaan mais tamit fi ma nekk ci parcelle dama fa yaatal suma bennoo bokk yaakaar ba tax na su pour ñëw jungaan aussi dama leen di prévenir bu ko defee ñu ànd ak man lépp pour bennoo bokk yaakaar. lolou mo waral ma and ak ay quelques femmes yu jógee parcelle ñenn ñi bokku ci ay mouvement femmes yo xamné ay avec lañ ñenn ñi bokku ci ay association lepp ñu ñew tew pour terre si suñu ministre suñu maire monsieur Alioune Sarr aussi ma jël engagement ferme caméra yi quoi voilà ma jël engagement ferme ne man ma jigéen damay soutenir monsieur Alioune Sarr pour la mairie de Noto Diobass ma bëgg wax ak waju ngaan yépp monsieur le ministre alim Sarr comme dama ñëw pour téwal famille mais aussi pour les jeunes dina la wax seen ay doléance ga amna ñuko fi jotta wax mais dina insister delu wat parce que ñun famille dañu bëgg ku ñu jappalé jigen ñi nangu nañu liggéey jigen ñi amna ñu jom jigen ñi dañu yeewu fajar secteur développement yépp jigen ñu ngi fa mais ce sont les moyens qui manquent. Et surtout au niveau de Djungan, moyens yi m'ont manqué parce que boo xoolee ñu ci bëri ñu ngi yeewu fajar di dem marché di kurkuri pour lu ñuy jox seen njaboot ñu ci bëri ñu ngi yéeg di wàcc di dugg di génn suñu sañoon nga defal ñu fii à Djungan ben activité bo xamanteni ni fami dañ ci yëngu di ci gis seen bop ku nekk bo xeye nga liggéey ci nga gi ci sa bop ñun lool lañ lay ñaan fi au niveau de Djungan bu loolu weesoo aussi jeunesse bi comme ni ko Badou waxee léegi donc am na si ñoo xam ne dañuy jàng ba am seen ay lijaasa mais duñu am benn post pour liggéey am na si ñoo xam ne aussi amuñu formation de même que les femmes donc damay ñaanaat aussi nga utal ñu ay formation pour jigéen ñi mu nekk ci wàllu agriculture wala wàllu élevage wàllu bu mu mën a doon ñu def formation qualifiée nga tegal ñu ay activités yoo xamante ni dinañ koy mën di liggéey di wàcc di gis suñu njaboot di ci jëriñu di ci jëriñ suñu njaboot parce que développement ci biir dëkk lay commencer au que mu avant que mu yegg Sénégal yépp te comme dañu ne monsieur Alioune ñun yow lañu am yaay suñu mbokk ñun itamit yow itamit ñun nga am kon takk nañ suñu tànk tubéy dañu la fas yéene jàppale teg la ci mairie bi mais fasuñu yéene yem foofu parce que gis nañ ci yow compétence gis nañ ci yow expérience gis nañ ci yow qualité ak charisme bi nekk ci yow donc ñun am nañ ci yow confiance pour renouveler teg la ci mairie gu nootoo Jobaas mais aussi suñu sañoon nga jàppale ñu Jobaas mu wees fii parce que Jobaas am na ay ressources naturelles mais dañ ko exploité wul. yéen samay mbokk jungaan jungaan di sama cosaanu maam li ma fi àndi su ma leen nettalee ni ma def ba ñëw bi xëy na doo leen ko gëm wante nag comme niñ koy waxee rek yàlla moom mooy boole nit ñu baax ñi man dama tukkee woon xaw a yàgg bi ma tukkee xaw a yàgg barki démb ma déggante ak monsieur le ministre ma waxoon ko ne dinaa ñëw taateen Euh, dimanche far yàlla dogal tey ma gontu ñëw taateen am ñi ma demoon seeti ma waroon ñibbi cees mu am ka nga xamante ne dafa dëkk jungaan war ñëw am marche am bagage yu muy war a andi fii demandé woon charrette pour jël si ko taateen far charrette bi mujjul ñëw ma ni ko yàkkamti naa mais bàyyil ma déposé la ma delluwaat taateen wàccee Abdou ma soog dellu sama tool am lu ma jëli foofu soog a ñibbi Thiès kon le hasard n'existe pas bi ma ñëwee sama oto baa ne tàkk fayuma ko sama doom yaa ngi ci biir dañu war a jàng suba bi ma ñëwee ma seen bâche bi ñu ne ma monsieur le ministre moo fi nekk ak sama sama jarba Ramatine Ramatine nag yàgg na maa laajte yaakaaroon na ne sax xëy na am na mu demee wante nag demewul nen liggéey moo ma jàpp rek moo ma téye Ndakaaru ma ni naa wàcc nuyu monsieur le ministre nuyu délégation saafonte ak ñoom xamal leen liggéey bi ñoo ko bokk dama am ngant bu ma téye wante incha allah dinaa wàcc jàpp ci liggéey bi donc monsieur le ministre maa ngi leen di nuyu baax di leen xamal ne incha allah dinañu wàcc jàpp ci liggéey bi ni ñu ko daan ni ñu ko daan defee incha allah donc maa ngi leen di maa leen di gërëm di leen sant. maa ngi gërëm ñëpp ñu fi teew ma leen di wax ne. ah Moustapha Diouf bu ngeen gisee rek mu teew fii am na li ko waral parce que dañoo nekk ay ndaw ndaw yu engagé ci suñu biir village bëgg leen lu dul développé Dioughane ak Diobass comme ñun ah, Dakar lañ jàngee man mi ñu turee lañ ma mu nekk sama yaay mu nekk sama conseillère mu nekk ku baax ci man ma comme politique dañoo ne politique à la base ma ne maa ngi gërëm ñëpp ñu fi teew ma leen di wax ne a ah, Moustapha Diouf bu ngeen gisee mu teew fii nii am na li ko waral parce que dañoo nekk ay ndaw ndaw yu engagé ci suñu biir village bëgg leen lu dul développé Diougane ak Diobass comme ñun Dakar lañ jànge man Mimi Touré lañ ma xam ne mu nekk sama yaay mu nekk sama conseillère mu nekk bu baax ci man ma ne comme politique dañoo ne politique à la base ma ne xaaral moo wàcc moo wàccee ñu teg ma ci ay loxo coordonnateur mu nekk Modou Sène bu dëkk Pout Diagne mu nekk coordonnateur de l'APR mu am empêchement moo tax tey teewu fi may nuyu ñëpp ñu fi nekk ñu nekk collaborateur monsieur le maire monsieur le maire dama lay wax ne xel dal na bu ñu gisee population Diougane yëpp vraiment ñu nekk benn nekk population boo xamante ne population mu am jom la bëgg dara ñu nekk population bu lenn rek la ñu mën muy liggéey ah ñu nekk ay femmes yu jàmbaar ay jeunes yu jàmbaar ñu fi ne donc lu ñu mën a def lenn ah xanaa seen yóbbante ñu wax la ko ma lay wax ni waa jungaan a ngi jungaan mu nekk village boo xamante ne wax dëgg yàlla liggéey lañ leen xamee bokk ndey bokk baay kon donc monsieur le maire mu nekk village boo xamante ne am na ñu fi jàng ñu ngi fi am nay ouvrier yu baax ñu ngi fi lépp loo xamante ne monsieur le maire war nga ko mën a jàppale waa village Jungaan muy maanaam xam nañ ministère bi nga yor xam nañ ni yaa ngi jàppale waa Jobaas kaddo kaddo góor il faut que ñu wax ak yow may ñaan nag jeunesse bi fi nekk jeunesse consciente boo xamante ne moo nekk jungaan monsieur le ministre nga jàppale leen parce que ñun moom la ñu am jeunesse bi bëgg nañu liggéey vraiment ñu ñu dëggal seen waajur yi la tabax yu fi rafet yëpp ñoo ko fi def ñu nekk ay xele yu ndaw xele yoo xamante ne fonk nañ seen bopp bëgg nañ liggéey looleen mën a jàppale nga jàppale ne suñu yaay yi nag gis naa ne yaa ngi leen di jàppale mais dañoo bëgg nga gan leen jàppale si wàllu financement si wàllu accompagnement bëgg nañ leen nga jàppale leen loolu moo waraloon kàddu yi jërë ngeen jëf may ñaan nag au soir du 23 janvier monsieur le ministre mu nekk candidat potentiel de la coalition Benno Bokk Yaakaar ñu xam ne profil boo xoolee candidat yëpp profil moo ci gën a baax. bilaay mina seytaane rajim bisimilahi rahmaani rahim mbokki jungaan ñu ngi leen di nuyu jiital ci nuyoo bi suñu càmmeñ suñu ministre suñu maire Alioune Sarr di nuyu ñi mu àndal Amadou Touré premier adjoint au maire ak équipe bi yëpp ndax suñu tuddee maire rek tudd nañ ñeneen ñi ci def moo leen di yóbbaale. ndax nak ku and ak sa kilifa do taamu sax ñuy tuddu sa tur jaruko ñuy nuyu chef de village suñu ndijay ablay tiandum diko ko ñaanal yalla gën ko may wër yagal ko fi lool ndax mak mom bu dee ay ndaw te xélam rafet buñu sañon sañoon dafiy yàgg lool nuyu kilifa yi mu dendal ñom tonton galo ñepp ñu ngi leen di nuyu waye ñuy nuyu nak di leen béral responsable yi nga xamni ño nekk ci jungaan lim ñepp nak waye buñu xolé Ramatine nday mati djouf daawuda càndum sama càmmeñ kulim da ngay djoum wala do matal kon mangi ngi nday càndum yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu soxna Maguette kàddu yu rafet na ñu ngi leen di nuyu tay nak suñu wax du fi bari dañoo ñew dooree ci djungaan tonto Ablaye Thiandoum dafa wax lu am solo campagne jotagul pré campagne jotagul ci investiture lañu tollu ñun bokku ñu ci ñi wër ni dañuy jaay suñu candidat dedet ndax candidat bu fi nekk def fi fukki at ak ñaar ci mairie bu Notto Diobass kenn ku nekk xam na ko nekk ministre de la république yor ñaari département yu gën a métti ci Sénégal kon kooku tamit ñëpp xam nañ ko beneen bi ci topp itam Macky Sall bu mu ñu gën a gore président de la république la kon bu demee ba bëgg Alioune Sarr am fu mu ko teg bëgg ko di ko yónni di ko doxloo di ko defloo di ko dindiloo kon ñun ñi nekk Diobass nag wax dëgg yàlla day jaadu comme am nañu ker bu ñu wëri naaj ñun jigen ñi de ñu naaj ndax am nañu kër ku am ker da ngay dem ni ca faax këru ca bu keneen ñëwé fekk la ca këru ca ñun jigen ñi man de contane na ni ma leen gisé bu leen ci dara jëlé gis ngeen tay ji fi jobaas tollu dañoo mu yok jëm kanam ndax ki ñu andal wutatul tur wutul alal wutul suuf wutul ndombal tank bari na nak ñu fi taxaw ño xamni suuf la ñuy wër ndomb ak tànk la ñuy wër daraja la ñuy wër loolu nag jàpp naa ni tey jigéeni jobaas pour pare wuñu pour jox leen ko ndawi jobaas tamit parewuñu pour jox leen ko waaye mag ñii nga xam ni dañoo fonk cosaan fonk ko lëre amuñu lu dul seen suuf tamit parewuñu pour joxe loolu defe naa ni kàddu yi du bari waaye ngeen yëg ni bis bu campagne jotee ba ñu ñëw jungaan bu boobaa di ngeen xam ni lépp dëgg la lu ñu war a wax dinañu ko wax lañu war a def dinañ ko def bu bés ba jotee le 23 janvier li ngeen war a def di ngeen ko def ba du ngeen rusloo seen responsable yii lii fi sànq am na ku ko fi wax lu am solo ànd leen bennoo leen bennoo su amee wallaaxil enzim nga ñaay lu yaatoo yaatu ngeen di am man ñi ma fi gis ñëpp ay batante lañ kon li am solo rek mooy ndey càndu ma nekk réew ma daawuda ma nekk mouvement ànd bokku jëmuwaay ibrahima ma nekk réew ma mari ma nekk LD ma nday mati ma nekk AP kii AFP ànd leen doon benn bu ko defee ñeneen ñi topp ci seen gannaaw day yomb day oyof du te li ñu bëgg dañ koy am ci kàttanu yàlla ginnaaw dañ koy am nag na amin wi rafet maa ngi leen di sant di leen gërëm di jégalu. Euh, affaire yi comme dafa guddi li ma waroon wax yëpp dinaa ko tënk ci ay quelques baat rek ñu ngi nuyu gan ñëpp di sargal ñëpp ñu jóge Pout.

amee 67 villages la ñu ñu am président des chefs de village boo xamante mu ngi tudd Abdoulaye Kandu mu dëkk cungaan gi kon loolu dañ ko war a ndamoo bu dul dara sa moom bu ñu jàppalewul Aliou sa moom ñu jàppale ko pour la ndam ndamam parce que mënul jiile les 67 villages de Diobass muy chef de village bi muy am échec ay doon loolu day uslu am na loo xamante ne ñun ñoo ko mën a liggéey politique moom ala kulli xaal dina am ñi féete fii ñi féete fële mais gis ngeen man ñi ma gën soxla mooy ñu ñu contour ñooñu laa gën soxla pour waxtaan ak ñoom mais ñi ma xesa am am naa leen bu ñuy wax bu ñu xeex dara ñun ñëpp xamante nañu loo rek na jaar-jaar boo wàccee sa ak nit yi mais boo diis am na ñi ngay yegg say nag sa biir kër sa doom bi nga jur sa am na nooy waxeeg moom boo waxeeg moom noonu defe naa dalay lay jox ginnaaw te yaay papam doom dañ nawle la waxatuma na koo xam ne du sa joxoo ko dara dafa am ni nga war a comporter moom man li ma mën a wax na nañ jàpp monsieur le ministre lu mu mën a def dina ko def parce que mënul def lépp jobaas moo yaatu mais allah kulli fu mu tibe ak fu mu tegagum nii defe naa du tànk buy dellu ginnaaw tànk biy dem ci kanam kese la ñaata dëkk laa leen wax 67 villages bu ngeen compter Jobaas lakk bi wër na ko lakk bi ay kilomètres bari kilomètres ne dem loolu man mii mënuma ko jungaan bu ñu doon cotiser fii bo 10 ans mënuñu am 20 millions pour ñu mën a def ba 2 kilomètres nañu waxante dëgg kon nag bu ñu amee koo xamante ni loxoom gudd na loxoom jege na président de la république muy son excellence monsieur Macky Sall Moustapha Niass fu mu teg Alioune Sarr tey jii nii ñun xamuñu ko te loolu ñun ñoo koy liggéey ci élection yii ni ñëw parce que fii tey dañ fi jaar rek pour nuyoo si ñëwaguñu pour campagne ñëwaguñu pour date di dafa ñëw rek romb pour jox ñu jiwu gerte ñu mën a commencé ruuj ñu tool yi ak ay gopp mais lii li ci kanam rawi li bët defe naa yoon leen ko xalal bañu leen bañul jobaas courant bu ñu compté 67 villages yi mën naa ne juróom-ñaari dëkk moo ci taggagul te ñu ngi ci yoon bi loo defe naa galaas yéen a ko doon jënd bu ñoom ndaag demoon Thiès ba ñëw dañuy rang man mii sax dama doon rang buñ ko leen fa jaayee 100 francs ñu ñëw jaay ñu fa 200 wala 250 dañ koy njëkkante loolu jeex na tey fii kër goo dugg am na firigo suñu yàpp tabaski Sarr kon nag jàpp leen ci ginnaaw moom lañ am moom lañu mën a àndal ñun na ñu ngi gërëm ñëpp. man monsieur le ministre man bu ma duggee si politique nee naa dama exposé sama bopp pour lan ndax jobaas pour lan ndax samay jeunes parce que jeunesse yi dañ maa bàyyiwul benn yoon seetaanuñ ma benn yoon ma wéet jeunesse yi ñooy sama weeruwaay sama jeunesse yi. ñooy sama lépp lu ma leen moo dañ ma ciy fekk mu neex leen dañ ma ciy fekk mun ma naq mu naqari leen sa dañuy bàyyi seen naqar ñu fekk ma ci loolu te man jeunesse rek a ma ñoom ak femme mu le ministre dañ lay ñaanal parce que nag ñun ñi fi juddoo fekkee démb ak tey xam nañ ne monsieur le ministre am na loo fi réalisé man nag dama maandu et puis du ma dugg ci réseaux sociaux man ba may politique ba tey man nga ma kenn du ma xas kenn dugguma ci kenn waaye nag damay combat pour sama dëkk man na ci yoon du dëgg kon tey bu ma bu ñaawoon tey amaana mu deme neen te dama dugg di si monsieur le ministre ay surprise yu baree baree bari yu nga xam ne xaw ma ko woon mais waa Jobaas ñooy wax may dégg mu nekk yoo xam ne vraiment foogu ma woon yegg si nañ fa ndike wees nañ fa te monsieur grâce à monsieur le ministre amul lu ñuy jooyet 67 villages ba muy nekk maire 5 villages amul woon courant tay defe naa ne ñaan nañ yalla bala ñuy naan 23 muy nekkat ca meer bi fekk dina tak inshallah allah fu amul ndox mu neex dina am ndox mu neex kon koku te ñun ñu daj lu ne ci root daj lu ci wal daj lu ne ci ci ci ci all bi di sonu te duñu gis dara di jënd ay lampe pétrole kon tay buñu ñu monsieur le ministre deful dara ku la nee nga ne gisuma lampe bi waye nak monsieur le ministre xana ñu gën la ñaax rek parce que ndaw mi nag ndaw yi nag wax dëgg yàlla dañ la bëgg man de monsieur le ministre ndaw yi barke alxuraan kan jungaan lay wax du femme yi du góor ñi du jigéen mi ma jur se billaay bu ci Benno Bokk Yaakaar bi xëyee moo may ñaanu bu ma nee ci Alioune Sarr laay dem rek mooy tane na jour kon nga xam ne monsieur le ministre du ñun jungaan ñoo la bëgg parce que da bokk jungaan

Ablay Tchandoum, des suñu kilifa di suñu Kharit, di suñu conseiller di suñu C'est de que nous sa donc nous avons aussi aussi délégation qui nga accompagné monsieur le ministre Nous avons aussi responsable politique politiques qui di nuyu magi aussi euh, jungaan Nous jeunesse bi ñu kon yakarna li xegn gens ci dafa ont election élection est déjà na kon euh, dañuy dem ci élection locale élection locale surtout bu ren enjeu bi dafa xawa metti lol ont moko waral euh, euh, parce que har kamu har kanamu dafa du monsieur le ministre alunsar Euh, dama leen wax ne actuellement nii suuf desul fenn fudul nooto Thiès jeexal na Sindia jeexal na Diass jeexal na Mbour jeexal na actuellement nii suñu suuf ñun waa nooto monsieur le maire fexe na ba tey jii nii quinze mille hectares réservé na ko ci suufu nooto monsieur le maire merci beaucoup kon loolu ñun béykat yi xamuñu lenn lu dul bay kon suñu suuf ku ku ñu koy sàmmal kon kooku la ñuy àndal bu ñu sàgganee nag ba teg la nga xam ne moo ñuy cher yu suñu suuf teg commune bi ci ay loxo yi nga xam ne maaratel taali yi yàlla bu ma am kon ñun ñëpp danañ dóor suñu loxo ci ëkk kon euh, ñun lu tax ñu jiital monsieur le maire kon ci ay critères yu bëri la dama ne digganteem ak yeneen candidats yi fi nekk y photo kon euh, jiital nañ ko ci wàllu xam-xam macha allah ci wàllu fit ci wàllu fulla ci wàllu maandu ci wàllu maandu nag dañ fay teg loxo kon monsieur le maire Alioune Sarr dama ne Jobaas nee nañu macha allah Sénégal yëpp nee nañu macha allah kon moom ci boppam nee naa leen turam sax dafa yóbbaale jëfam jëfam nag moo wone melekaan wu taaru kon monsieur le ministre la ngay dox guddeeg bëccëg du lenn lu dul lu defar jéeri ji. kon jaarama monsieur le ministre kon xamoon nañ ne monsieur le ministre boo faloo rek euh, béykat yi fi toog est-ce que béykat yéen falu ngeen béykat yéen na laaj bi maire faloo ba léegi falu ngeen kon bi mu faloo ba léegi béykat yi falu nañu élèves yi falu nañu jàng jàngalekat yi falu nañu jigéen yi falu nañu et yi falu nañu kon monsieur le maire dañuy yàkkamte yow danga nga di loo xam da nga di ndaw boo xam ne da nga namp ci maam moo tax fépp fu mu dem dañuy yàkkamte mu yàbbi ba ñu jël ko sàmm kon merci monsieur le ministre kon tey ñun waa Jolaaf am nañu la nga xam ne dañ ko xamul sa yaakaar naa le 23 janvier du 23 janvier monsieur le maire 23 janvier ñun ñii la kon lu mu ñu lu lu mu ñu lebal dañ ko ko war a fay kon du lenn lu dul ñun ñëpp ñu mànkoo dajaloo def benn sey le 23 janvier ñu jël xob yi yëpp benn boo ko yaakaar def ko ci urne yi mu fees tel ñu ànd féete victoire bi monsieur le maire bu am lenn looy tiit parce que euh, Mouhamed Rasulullah sax moo nekk ca kanam kon ca kanam ca kanam ca kanam vive le benn bokk yaakaar vive le benn bokk yaakaar vive le maire Alioune Sarr merci. balaa may commencé damay jël nuyoo bi ma teg ko ci chef de village Dioungane mu tasaareel moo ko ci njaboot bi yëpp. may nuyu monsieur le ministre monsieur le ministre maire Alioune sar nga xamni moy suñu candidat Benno Bokk di nuyu leader ñu fi nek yeb ño xamni ni lañu andal ak responsable yi fi nek Ibrahima tiandum ak Rama ten may nuyu itam sama ben responsable bi ci nek muy pap ñukoy Fai, wax Abdoulaye fay xamna dina ag ko gëna a boole ak ñom tiandum ngeen mëna and bi parce que Benno Bokk Yaakaar lañ nekk fu ñu nekk ñoom ñëpp dañoo war a xamante ànd liggéey liggéey bi may gërëm ñëpp man nag dafa am loo xam ni dégg naa ko fi mooy ay doléance te nag ku xam ni doléance ñu xam ni loo xam ni lu ñu war a def la te ñun pour loolu am dafa am lu ñu war a def muy jeunesse yoo xam ni ñu nekk fii yëpp. ñu wax ni dañuy dox dem janji, mary yi naan dañoo am luñu bëgg ci luñu japp pour lolu am nak so buggee nit may la doole danga koy may doole te ñun ñun ñepp nañ taxaw may monsieur le ministre doole may santat ñepp nak parce que li commencement la man na né dañoo ñew rek nuyo si suñu nuyo sé ñu melni kon xam naa suñu commencé campagne yi beneen affaire lay doon te su soobee yàlla en tant que responsable PIT dinañ fi ñëw ziar si seet si Abdoulaye Faye moomu muy Pape may ne monsieur le ministre nekk na koo xam ni ku ànd ak moom doo rus parce que man xale bu ndaw laa nekkoon mouvement étudiant nekkoon ci Amersi Thiès jiite ko pendant ñaari at monsieur le ministre bi moo ñu doon jàppale di ñu jox ay situation di ñu taxawu kon nekk na ministre boo xam ni day taxawu ndaw yi côté boobu ñun étudiants yi fi nekk yépp xam nañ loolu ba yàlla def tey maay liggéey suba damaa war a xëy liggéeyi mais ministre bi fu muy dem su ma sañoon damay nekk ci côté am malgré guddee na maa ngi fii nii suba huit heures war damaa fekk place bu may liggéeyee mais terewul dama fee toog ñëw ànd ak moom kon loolu moo ko liggéey ñu doyloo ko nag côté bu ne parce que ñun ay intellectuel lañ te moom nitu xam-xam lañ xam nañ ñu mën a diriger Diobass am na ñoo xam ni dañoo ñëw ngir def benn spectacle rek ñëw ambiance dem ñibbi parce que noonu laa koy tudde parce que dañ koo defoon première année ñëw taxaw di def xaalis partout te bés bi ah lu ñu gis keroog xam nañ ni gars yi wan nañ leen mënoo leen jiite Diobass parce que amuñu xam-xam bi kii nag mooy ministre boo xam ni Sénégal moo ko teg jox ko loo xam ni nekkul n'importe quel ministre moo ko fa mën a téye kon kooku soo ko amee sa gox wax dëgg fa yàlla waroo caaxaana caaxaana caaxaan bay farag koo xam ni mënul sax gérer këram nañu waxante dëgg kon donc responsable bennoo Bokk Yaakaar yi fi nekk yëpp def nañ choix bu baax bi muy ministre Aliou ma leen di ñaan nag yéen ñëpp. ñu jàppale ko mag ak ndaw ñëpp ñu jàppale ko parce suñ ko jàppalee suñu bopp la ñu jàppale tey jii nii suñu amee mbaa ñu caaxaan bu ñu perdre ministre bi yàlla xam na ne dinañ toog di jooyaat ñu naan ana ministre te mën na am duñ ko gisati kon donc ñun ñëpp nañ taxaw jàppale ko ñu xam ni moom lañ am te mooy koo xam ni mooy am xam-xam boo xam ni moom moo mën a yor joobaas nañ waxante dëgg kon donc maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp vraiment may bën a guddal rek parce que damaa war a ñibbi dakaar te bëgg naa vraiment euh, affaire bi au moins que ñëpp jaar ci wax ci lu mu ci war a wax merci beaucoup maa leen di gërëm monsieur le ministre jaajëf. sunu nuyoo bi la jox yeggali ko ci président Macky Sall mu jàllale ko ci Sénégal yëpp ndax yaay meeru Jobaas yaay dooni meeru Jobaas tamit le 23 janvier incha allah. loolu dañuy baaxantal rekk waaye yàlla noppi na kon suñu jëlee suñu nuyoo teg ko ci sa loxo dañu ne dana jote ci Macky Sall ndax Macky Sall yaa ko fi nekkal ci biir Jobaal te bu jotee ci Macky Sall Sénégal yépp jot ci kilifa diine yépp jot ci kon sunu ndam la sunu kilifa bu toll nii ñëw toog sunu ginnaaw ñun ñuy yëkkati ay kàddu waxuñook waa jungaan waxuñook waa jobaas waa Sénégal la waxal waa Sénégal lañuy ñuy waxal ndax jëwriñ boo xamante ni dafa bokk ci jëwriñu président de la république bu toogee ci jeetaay bu mel nii Nous wax jëme ci moom di wax ci avenir Jobaas waxuñoo Jobaas waxuñoo jungaan Sénégal la ñuy waxal Sénégal Jobaas as la ci la ci mu yor Sénégal yépp la a mu yor ndombal tànk loo kooku bu toogee fii ci suuf si war nañ xam ne am nañ ndam am nañ li ñuy am nañu li ñuy bége te jobaas jote na jobaas egg na jobaas toog na fa toogaay yu kawe ya ndax seen doom sant ko gërëm ko dama ne daañ lott pour def ko monsieur le ministre lay sant di la gërëm di jaajëfal nag population jungaan yépp danaa lott lool pour gërëm leen waaye nag su ma leen bàyyeeg yàlla rek lépp mate yàlla mi am taxawaay di matal lépp te manqué lenn man lépp xam lépp sañ lépp yàlla na leen yàlla taxaw taxaw njaboot taxaw dëkk bi yéen sargal nit rek ngeen mën a def sargal nit rek ngeen xam yëkkati nit rek ngeen xam teg ko fu kawe fa mu jotewul rek ngeen man yéen ay gor yéen ay jàmbaar yéen a jara àndal yéen a jara ku ànd ak yéen bu tiitee rek na seetaat boppam ku ànd ak yéen bu jàqee rek na seetaat boppam sama waa ji Malick Tine ma koy nuyu bu baax euh, feddali sama coloré ak moom muy ku ñàkk ki ñaan ndaxte moom lu ma war a def lu ne du ci xaar daf ma koy defal lu ma war a wax lu ne duma ci xaar daf ma koy waxal samay mbokk waa réew mi sama parti réew mi suma parti boobu benn panel la maa ngi leen di nuyu bu baax di leen sargal di leen bége bu baax feddali sama kóllëre ak ñoom ña ngay waxtaan waxtaan yu am solo lépp lu ma fa war a wax wala war ko faa taxaw Malick Tine mii taxawu na fa wax na ko fa ci lu rafet ñooñu tamit ma beral leen nuyoo beral leen cant beral leen ngërëm ndax am nañ taxawaay bu rafet sama gannaaw tamit buñ ma nee coordonnateur de réew mi fii ci Jobaab ñooñu ñoo ma ko def Nous avons une une délégation muy monsieur Niantine Bekay Jara mi ngi Omar Diouf dëkk Taateen mi ngi fii de ngi di gërëm di femme. sama gars ak femme ngeen gis sama ñaari jigéen sant leen gërëm leen nag ma leen di ñaan ngeen ñaanal leen te may leen loxo ci lu may yëngu rek ñoom ñi ngi ci ci ñi ma dooleel sant naa leen gërëm leen yàlla na yàlla fay macha allah may wax rek ne jobaat li ñu war a ñaan kay mooy ministre yàlla gan ko dooleel yokk wëram yokk man-manam yokk am-amam. te yàlla sàmm ko loolu rek lañu war a ñaan ndaxte liggéeyam yépp liggéeyam yépp jobaas da cee boole loo xamante ni boolewu ci kenn xaaru ci kenn lu dul ne rek moom jàpp na ne moom rek a war a defar jobaas te mi ngi ci yoon fa la teg tànkam ñun ñu gis ko ñu gis ko ñun jugaan li may wax ci jungaan foofu xam ngeen bërëb fii ñu taxaw fii la yoonu jobaas yépp daje fii ñu taxaw nii jëlal fii nga dem baxam sànge foo bëgg a dem jëlal fii nga dem nooto dem foo bëgg a dem jëlal nii sama gannaaw demal mbomboy dem kor wolof ya ba dugg foo bëgg a dem kon jungaan mooy centre bi loolu monsieur seele ministre te ko xam ba gis ngeen yoon yi mu defar ci biir Jobaas yépp fii la daje fii nii la kon ma ne développement la damay ñëw ci ay réalisation de moo tax ma leen di wax loolu loolu développement la Jobaas xalaatu ñu woon ne dañ fiy dawal jakarta ba ñuy ne nañu dimbali xale yi ñu am ay jakarta kon buñ ko amee ba di ko fi dawal am na ki leen woyofalal loolu mooy ki leen defal yoon yii du kenn nag muy sunu maire Alioune Sall yoon yooyu tax na ba fu ñu bëgg dem dañ fay dem surtout ñun jugaan nag

courant baa le ñepp di taal Le courant bu coupé ñu ne se te te te courant dafa coupé ñu le ku ko fi Vous avez kay réalisation la wayo bo amé ay piste de production sa génn yomb say retour yomb ku fi rapidement ñu yobbu ko ci bi réalisation la courant bi taxaw ngeen di taal frigo euh, euh, lampe ñu ne réalisation réalisation la moo fi opposant du kenn ne taxaw na fi man leen wax ne moo fi def de waxuma jobaas ndax ku taxaw jobaas li wax ci comme yéen waa jungaan nag yéen lañ ñëw seet nuyu leen réalisation xam ngeen ni kuy tund ku ne fa muy mujjee mooy dee yal na yeex waaye ñun ñépp laq nañ suñuy waajur laq suñuy mbokk mooy fi ñu jàkkaarloo nii yal na leen yàlla yërëm te jéggal leen dama ne kii jëm ji sunu gannaaw man maay coordonnateur de l'association pour le développement de Diougane kon maa gën a placé wu pour wax leen lan la ministre bi def jeunesse jungaan ku ko wax fii te man waxuma ko man maa yor preuve yu leer yi ndax dërëm dugul nag te mën mënuma cay xam dara cimetière yi ngeen di gis dañ doon jooytu chef de village bi ci dox imam di ci dox notable yi di ci dox waaye bañ kon

jox ñu enveloppe pour 500000 francs mi ngi nii réalisation la mu ne ñu nag Ibrahima affaire yi nag commencé suba. Jomassi TV nañu wax ak Jomassi.